gis nga ba muy ñaan naan suñu borom yàlla nanga ma def may ab jullikat di ko taxawee maag samay sët te ngay nangu sunuy ñaan rabbi ja'alni muqimat salaati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a yonent yàlla ismaila alayhi salaam gis nga ba suñu borom di wax yonent bi naa ko wazkur fil kitaabi ismaila innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasulan nabiyya wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati wa zakaa wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati wa zakaa wa kaana 'inda rabbihi mardiyya yonent yàlla Muusa lu ko sun borom tabaaraka wa taala wax na taxawal julli ngir nga may fàttali ko wa aqimi salaata li dikri yonent yàlla Isa salaam ba muy wax ak nitam ña te doon ab liir bu tooy inni abdullahi ataani al kitaaba wa jaalani nabiyyan wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bis salaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu na nga digal saw ñooñ ñuy julli te ngeen muñ ndax jullikat ku muñut doo àgg ca mos neexit wax te waaye nag ku xas mos neexit wa dootoo nangoo sëlmal lu diis la tamit ci ñi ragalut yàlla wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin kon yàlla na yàlla boole ci eh, way ragal yàlla yi ba julli yomb ci nun julli sun borom teral ñu ci ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ju rëy ndax dafa mel ni jaamu malaayka yu yu bari la suñ borom boole ci julli ndax am na ci malaayka yi ñoo xam ne nii seenug jaamu mooy taxaw rek ba bis am na ñoo xam seenug jaamu mooy rukkoo ba am na ci ñoo xam seenug jaamu mooy sujjoot ba bis penc am na ci ñoo xam seenug jaamu mooy toog ba bis penc am na ñoo xam seenug jaamu mooy sàbbaal rek ba bis penc am na ci ñoo xam seenug jaamu noonu nga koy toppee te yooyu yëpp dugg na ci biir julli ñun suñu borom booleel ñu ko ci julli julli itam doon lu rëy rëy loo xam ne ni euh, sun borom fonk na ko fonkeel goo xam ne ni juróomi ponk lislaam yëpp bu si nekk seyd Seydina Jibril alayhi salaam la sun borom di yónni mu ñëw fekk yonent bi ci kaw suuf jox ko ko kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala lazina la qablikum laallakum tattaqun muy koor bu dee aj màkka walillaahi ala naasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabila noonu nga koy toppee ba yëpp jeex waaye julli moom fonk gu ko fo suñu fonk ak rëy gum rëy moo tax mu woowal boppam yonent bi mu jógee Makka euh, dem baytul maqdis jógee fa dem sidratul muntaha àgg foo xam ne Seydina Jibril mi ko doon gunge sax àggu fa suñ borom wéet ak moom jox ko ko mu doonoon juróom fukki julli yonent yàlla Muusa alayhi salaam dogale yonent bi laaj ko ñaata la mu ne ko juróom fukk mu ne ko wàññil demal wàññi ndax mankat kat sama xeet ñaari julli rek lañ leen joxoon muy suba ngoon te daawuñ ko matal dañ ko daan faat yonent bi di wàññi di baagante di wàññi ba mu des juróom teewut yonent la Muusa alayhi salaam ne ko demal rek mu wàññilaat la ko waaye mu ne ko am naa kersak nag dem di ko wàññiloo waat juróomi julli rek ci ku la joxoon juróom fukk sun borom dal nag wéyal naa ko nag waaye nag juróom fukk juróomi julli yooyu ku ko julli da nga am yoolu juróom fukk yama la njëkkoon a jox kon bil adaa i xamsun wa bi sawaabi xamsun da ngay julli juróom am yoolub juróom fukk loolu tamit ci fonk gu yonant bi fonk gu suñu borom tabaraka taala fonk yonant bi fonk aw xeetam moo tax moo tax mun a yéen kat yéenay xeet bi ma gënal ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yeneen xeet bi nga xam ne ni yéen laa génnee ci xeet yi ngeen gënal ma ci kon nag julli mooy li nga xam ne ni mooy relation spirituelle bi dox diggante jaam bi ak boroomam mooy buum buum gi dund diggante jaam bi ak boroomam bu bu bu fooyooyee rek wala bu daggee diggante jaam bi ak boroomam amatuñu alaaqa amatuñu relation kon nag nañ ko fonk bu baax a baax a baax bu subaa ñu ñëwaat ci incha allahu euh, yeneen anam te lépp jëm ci julli ñoo ngi soññaat di woo mbokk yëpp ci liggéey bi nga xam ne ne waa daara Hikmatul Yawmi ñoo ngi koy fas yéene gën a liggéeyal Serigne Touba te lépp jëm ci ak tarbiya wa taalim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 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim